mbokk yee xarit yi suivre solution TV solution info am nañu mbégte ñëwaat beneen yoon ci l' émission des émissions tey ji ci altine ji ginnaaw bi ñu leen nuyoo ñu daal di dem nag ba diwaanu Ceskaay benn dëkk ñaari gaar benn aéroport ñaanal leen jàmm ñaanal ko tam sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbàkke yàlla suñu borom yàggal ko fi loolu mu ànd ak wér defal ko jàmm defal ko njabootam gis ko si biir këram te koy ñaanal mboolem xalif fi ci biir réew mi yëpp suñu mbokk sàmmkat yeeg béykat yi duñ leen fàtte benn yoon. yoon waa diaspora bi tam ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ndaxte saay su nekk rek ñoom ñooy bàyyi xel émission bi di l' émission des émissions ñu fas yéene di ci ànd ak chaque jour rek ak alaaji Sa may nga ñu bàyyi ko mu nuyoo ak internet yu suivre euh, Solution TV. ma jigéen ñi ngi lay fay di am mbégte ak kontaan ci yow. dem ba Touba nuyu xalifa général des mourides sëñ Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi tànd wér waaye ñu ngi nuyu di ziar sunu sëriñ sunu xarit sëriñ Sidi mu sëriñ Abdoul Ahad Mbacké ñu mm-hmm. koy ñaanal mu yàgg fi tànd ak wér di nuyu sëriñ Xaadim ne ca kër gaa ak njaboot ga yëpp di nuyu bu baax a baax sëriñ Abdou Karim Mbacké vraiment Karim la nuyu kilifa diine yi yeewoo ci biir réew mi di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne bi ñu ngi ñuy la ak fu ñu mën a ne sénégalais yi nekk ci biir réew ak ñi nekk bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm mm-hmm. di am mbégte ak bànneex macha allah macha allah mi ngi noonu jërëjëf Mbengue Euh, comme niñ koy defee saa su nekk rek daañu jël lenn ci ay waxtaan yi nga xamante ne nii gis nañ ko ci penc mi indi ko fii su ko defee alaaj daat ci indi xalaatam euh, tey jii nag ñu fas na ànd ak yéen comme niñ koy defee saa su nekk rek Serigne Saliou Gueye daan na tegaat ci raay ki nga xamante ne ni moo di Kader bu Sen TV ndax euh, li muy wax ba tey waxtaan wi nekk ci penc mi sénégalais yu bëri di ko wax mooy que ni Diomaye du Sonko te Diomaye ak Sonko dañ leen a war a bàyyi ñu nekk ci jàmm moom nag Kader am na ay kàddu yoo xam ne yëkkati na ko ci jëmale ko ci ne séparation euh, mel ni lu am la ba Serigne Saliou tegaat ko ci yoon buñ ca noppee nag daañu ànd ak ki nga xamante ne nii moo di Bougane Gueye Dany moom nag ab audio bu mu defoon euh, di ci wax ak ku ñuy euh, wax Serigne Saliou di ko expliquer ni nga xamante ne nii noonu la yëfi tëree jëm ci élection yeeg doxalin bi ci am yëpp ak nit yi liñ koy waxal yëpp ñu noppi ca nag ànd ak ki kii di Moustapha Diakhaté moom nag moom ba tey ci Ousmane Sonko ak président Diomaye Faye nee na nag am na yenn waxtaan yoo xamante ne ni ab président bu koy waxtaanee moom Sonko yoonam waru ca nekk warul sax ba di ko fekkee euh, bay xam la ñuy sekk ca waxtaan ya moom Bassirou Diomaye Faye léegi léegi ñu daal di leen koy tegal ci table bi su ko defee ji indi ci xalaatam. Euh, kon nag Modou dañ koy daal di dooree ak Kader ak Serigne Saliou keroog ca télé ba am na ay ñagas-ñagas yu am ci seen diggante ngir rek ci doxalinu Ousmane Sonko ak Diomaye fay ñu dem déglu ko te dellusi. et que quoi qu'il en ñoom ñaar dinañ retrouver wu mais que quand ñu mën a def la séparation.

bul ils vont se retrouver. non non non non non non moom ça que dans sa tête aussi. non moom carrément moom ça c'est des divisions artificielles que les gens ont essayé de faire. Mais l'histoire a montré que dès le départ, le jour où ils sont sortis, déjà ça va montrer qu'il n'y a aucun problème entre les deux. La preuve, le lendemain, ils ont fait une conférence de presse conjointe entre les deux. Ils sont allés battre campagne à Ziguinchor. Dès le départ, ils étaient ensemble. Après, qui m'a dit, et le jour J, au final ils sont rencontrés à Mbour donc je crois que vraiment il ne faut pas de créer des divisions artificielles par-ci par-là je crois que ce type de discours-là les gens les ont pas aujourd'hui il y a une situation nouvelle qui est là le fait de vouloir créer des divisions artificielles loolu amul ci biir kooku aussi il faut avoir l'honnêteté de dire c'est vrai peut-être que am na ñoo xamante nii ñoom ci biir Pastef loolu nekkoon na seen mébét mais quand même vouloir que li ci gën a am solo mooy c'est Ousmane Sonko mhm. am na ñoo xam ne loolu mënoon na nekk seen mébét mais j'ai dit que li ci gën a am solo mooy les entre Sonko et Diomaye il y a pas de problème au point de se retourner. mais il y a plus que problème vous non. confirmez qu'il y a plus que non, problème. problème parce que dans tout ce que vous dites c'est des peut-être. non non non donc avec les peut-être on peut supposer que li ma la wax ni la. moom moom ngay moom ngay wéddi moom nga dégg la ah, il y a rien de. non vous parlez et que vous dites des peut-être. Ah, am na peut-être ñu ko bëggoon am na peut-être ñuy daan parce que am na peut-être mais les peut-être dit que ni vraiment. quand je dis peut-être je parle je parle au sein du camp. du camp mais je dis li ci am solo mooy les deux pontes. très bien les deux pontes. Ah. entre les deux pontes. il a ne faut pas créer des divisions artificielles. Kader, je est temps de changer de discours. Non, non, non, non, non, Non, je ne suis pas dans mm-hmm. Chacun de nous est libre de choisir quand bi mu farak que quand faites changer mon discours c'est parce que ah, je suis comme ça mi ngi noonu alaaji euh, dégg nga li Serigne Saliou wax Kader mooy que ni sénégalais yi dafa mel ni ñenn ñi ci dañu bëgg am euh, division bu nga xamante ne nii bëgg nañ mu dox ci diggante Ousmane Sonko pourquoi nit yi mu leen di gêner le fait nga gis euh, Bassirou wala Sonko ñoom ñaar ñu ànd mën a créer benn polémique bi ba ku nekk di toog di ci am noo ciy analyser. ma jigéen polémique bi nga xamante ni bii moo am mooy polémique bi nga xam ne moom nga gis nii moo am. Hmm. Eh, ñi ko créé mooy ñi nga xam ne mosuñoo bëgg Sonko falu mosuñoo bëgg Jomaay falu léegi nag bi Jomaay faloo léegi nag ñoom ñoo bëgg a créer problème boo xam ni. maanaam seen problème. moom la ñu bëgg a tuxal indil ko ñi nga xam ne amuñu problème ñun amuñu problème ci Jomaay ak Sonko bokk benn oto bu ñuy ànd di liggéey ñun amuñu problème boobu ñun amuñu problème Jomaay ak Sonko bokk bureau ñun amuñu problème boobu ñun amuñu problème Jomaay ak Sonko di dalalandoo benn gan gu ñëw ñu koy dalal di ko déglu di wax ak moom di ànd di voyage ci avion bi amuñu problème boobu il faut ñu xam ñun lan mooy sunu problème ñun loolu du problème xam ñun lan mooy sunu problème ñun ñi nga xamante ne bii ñoo voté pour lii nekk. Mm. ñii voté wuñu pour lii nekk. moo tax ñoom ñoo am problème léegi nag bëgg a jël seen problème tuxal ñu ko maanaam indil ñu ñun ñi amut problème nga xam ne dañoo nekk ñun ci jamono ji jamonoy gañe nga xam ne réew mi gañe nañ. Mm. nekk nuñ ko doxalee nan la réew mi war a doxee ñoom ñu bëgg ñoo indil ay de seeni détails ñu bëgg koo orienté indil ñu ko ne ñu lii mooy seen problème te fekk ne ñoom la nekk seen problème ñoom ñoo am problème ñoom la ànd ak sonkook Jomaay neexut bëgguñu ko bëgguñu ko ñuy seen gouverner moo leen neexut léegi nag loolu mooy seeni jafe-jafe léegi nag lii ñuy def nii dafa war a gën a tax ki nga xam ni mooy président Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko gën a xam ni ña taxawoon démb di noon yi bëggutoon projet bii am tey lañ gën a taxaw ngir yàqu ko lii dafa war a permettre patriote yépp daa dee doon benn bopp xam ni ña taxawoon démb ne lii du fi amee ba tey ñi ngi taxaw ngir yàq yëf yi moo tax képp koo xam ni yaa ngi wax di wax lu xaw a jox raison ñii waaw di wax naan waaw waaye nag kon yow nekkoo lëngër dond ak ñi nga xam ni ñooy borom projet bi parce que dañ ne projet lañ yore projet bi du benn nit a koy doxal ay nit a koy doxal Ousmane Sonko bu ko neexee moo président Diomaye ñuy ànd ci avion bi di tukki fu ñu jëm ñu fay ànd ñun ñi nga xam ne ñooy majorité ci réew mi nañ xam ne nag ñoom minorité lañ ñoom ñii ñun ñi nga xam ne ñun ñooy majorité ci réew mi nga xam ne dañ ñoo jaay ne ñu boo voté benn président am ñaari président loolu la sénégalais yi gis booy dañ ko wax ba pare Ousmane Bassirou Diomaye Faye taxaw fële ne leen fii ma nekk Bassirou sonkoo fi nekk Diomaye Ousmane a ngay wër Diomaye sonkoo ngay wër. loolu la leen kiy wax. loolu lañ ñu jaay wala jaayuñu la. waaw loolu lañ ñu jaayee. loolu lañ jënd nag ñun. Ah. ñun xam nga lañ jënd. tey jii bu ñu gisee Bassirou Diomaye Faye te gisuñu Ousmane Sonko. Mm. du yoon parce que jaayuñ ñu loolu dañ nañu Ousmane ay Diomaye Diomaye ay Ousmane ñun loolu lañ bëgg a gis ñun majorité bi laa wax de ñun ñi nga xam ñooy majorité. Mm. ñun loolu lañ bëgg a gis nii mu demee nii la ñu safee. ñoom nag il faut ñu bàyyi leen seen xol bon parce que nag wax dëgg fa yàlla mënuñu fee nekk trois ans daanaka xolu patriote yëpp di bon ñuy jooy lu ne ñu daj ko tey jii nga toll ci mama bége ñu indil la wax joo xam ne day jéem a yàq say kii maanaam tolloo leen benn patriote tollatut foofu xam nga fu ñu toll mm. ci béggee bàyyi ñii ñoo nekk ci période naqar xam lan mooy mettit di gis Ousmane Sonko ak Jomaay ñuy àmb di signé kii bu signé tuuti sax jox kee mu yeggale ñoo tey ah. noonu lañ ko bëggee c'est que il faut que wax ci jeex benn yoon parce que. mais mais mais mooy solution pour pour wax ji ji ñu. bañ koo solution pour ñuy wax ji du jeex day doog tàmbali. parce que tamit mënuloo chaque jour saa soo xëyee. waaw mais il faut ñu wax mais danga leen di bàyyi ñu wax. kam tamit nit ki nag doo ko dóor ba noppi nag na ko doo yuuxu bàyyi leen ñu jooy bàyyi leen ñu jooy mais li am solo mooy li ëpp ci askan wi. Mhm. ñoom li ñu voté. Mhm. mooy lii la ñu bëgg. lii ñu bëgg nag yàlla bu mu tas. yàlla na ko sunu borom dëgëral te képp koo xamante ni kii yaa ngi ciy liggéey ngir tas ko yàlla na la sunu borom yàlla toroxal parce que nag bu ñu kenn fonto ñun dañoo bëgg réew mi jag te am nañ ko yaakaar ci ñoom ñii yaa ngi dégg ñii bu seen pexe juboon yëf yi du yegg si seen pexe dëng moo tax nag bu ñuy wax léegi da nga leen gis dañ bu ñuy wax dañuy mel ni ñu jëfru waaye wallaay sëñ bi ak jigéen ñi nga xamante ne bi ñoom ñëpp ñi nga xamante ne bi ñu ngi ci loolu jéema a defe ne mën nañoo tàggale président Diomaye Faye ak Ousmane Sonko dóor nañ seen loxo ci ëkk Diomaye gor la Sonko gor la ñaari gor lañ yoo xamante ne bi dañoo séq mbir kii di séeréer kii di joolaa yaa ngi ñii duñu ay workat bu fekkente ni bi dañoo yaakaar ni la politicien ya daan def ba tey mën naa nekk nañ xam ne ñii duñu ay politiciens dinañ teg yëf yi ci siraatal mustaqim mu di leen naqari pendant juróomi at te pareegut bu juróomi at ñëwee dañuy demaat élection gañewaat nga ko yaa ngi dégg bu ñu gañewaatee noonu lay demee ñu demaat élection fii wax xolof gis nga mbir mi projet la boo xamante ni fi mu doon nii trente ans yu wóor yoo xamante ni bi gaa yi teg nañ ko seen loxo. te bu ñu paree yéen a fi doon wax ni Ablaye Wade li mu waxoon. Ablaye Wade cinquante ans la waxoon cinquante ans. waaw mënta ne affaire ba njuuñ na. Ah, parce que ci diggante bi mais ci diggante ci diggante bi dafa am leneen lu kii mais bii. Hmm. bii moom dalay wóor ne la ma jigéen. ci kàttanu sunu borom. yaa ngi dégg. Hmm. kuy opposé nar ngaa yàgg ci opposition bi de man kay oppo nouveau opposant yi soo ko tàmbali. te seen carrière war a dem lu mu gàtt gàtt danañ def 30 ans yoo xam dinañ ko opposé wu nar nañoo sonn loolu nag. di bànneexu réew mi. Hmm. yaa ngi dégg président Diomaye Faye ak Ousmane Sonko nañu ànd. Hmm. gérer yëf yi teg ko ci siraatal mustaqim bu ko defee opposition ci kanam tuuti sax boo deful ndànk mën nañoo dem sax ba euh, kuy opposé wu il faut nga am xam-xam waaye ñii nga xamante ni ñoo nekk ci prato yi chroniqueurs yi xam nga nag chroniqueurs yi. nguur yi fi nekkoon daf leen a arrangé dafa am nguur yoo xamante ni bi nguuru système la chroniqueurs yi doon ay chroniqueur système bi comprendre nga mm-hmm. yëf yi di dox ci beneen anam yaa ngi dégg moo tax lii xew nii neexu leen moo tax nu ñu mën a def ba créer problème mm-hmm. wala dañoo defee ne bu ñu créer problème ñu woo leen ci ruq ne leen saay affaire yi nag bàyyi leen yenn yeeg yooyu nag am nu mu demee loolu du fi am mm-hmm. lii mënu leen fee indi ay problème doomi séeréer la ak doomi joola ñoo àndandoo fas yéene liggéey bi réew mi incha allah rabbi te bu soobee yàlla wor du ci am ci kàttanu borom en tout cas loolu la sénégalais yëpp di. Ah, ah, espérer loolu mooy li ah, sénégalais yi ëpp. non am ba tey am nañu am nañu ñuy ay sénégalais lañ de bu leen def ay indien de du ñu indien ay sénégalais lañ. <laughs> mais ay sénégalais lañ euh, yoo xam ni. bi ay mécontent lañ. waaye nag ay sénégalais lañ. Mm-hmm. waaw waaye mm-hmm. nag wax dëgg fa yàlla nag ay sénégalais mécontent lañ. waaye ñu ngi leen di massawu di leen wax ne leen jël bi daa metti. metti na mm-hmm. moom trop sax waaw bu jël bi metti faaw jooy am en tout cas ñi ngi ñaanal euh, président Bassirou May Diakha Faye ak euh, Ousmane Sonko ak képp koo xam ne rek fas yéene nañoo ànd ak ñoom gouverner yàlla suñu borom defal leen jàmm ba lépp loo xamante ne ni sénégalais yi ñu ngi koy xaar ci ñoom ci ay attente ñu daal di fay àgg ba àgg foo xamante ni sax sénégalais yi xaaruñu ko woon ci kàttanu yàlla dañuy daal di ànd nag ak Bougane Gueye Dany moom nag ab audio. Euh, di di ay wax yoo xamante ne nii waxal nañ ko ko euh, durant campagne bi di am ak euh, élection yi ni mu fa tëree yëpp moom andi na ci ay leeral ci xaritam boobu mu doon waxal ci ojo naan ko dinaa la woowaat ñu dem déglu ko te ñoom. sëñ Saliou maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax sëñ Saliou jërëjëf dégg naa kàddu yi. dégg naa wax ji euh, dama nekkoon ak ay partenaire mais incha allah suma ma ci kanam dinaa la dinaa la woo euh, pour gën leeral parce que bari na ci li ñuy wax loo xam ne du dëgg bari na ci loo xam ne nga baal ma ci kàddu gi ay ay kàcc la euh, et puis li nga wax ci suma njaboot ku ci nekk ak fa mu tànn boo tànnoon fenn da ngay obligé ñeneen ñi ñu fekk si la comme mën nañ la bañ a topp comme ni mu amee ci yeneen kuréel yi nit ki jël décision ñeneen ne ko defewuñu ko alhamdulilah ñun loolu daluñu. Euh, yàlla may nañu lucidité ba jël nañu décision boo xam ne ku ci nekk gis nga ci sa bopp. jàpp naa ne loolu mooy posture bi ñu doon xaar ci man muy décision ak position bu ma assumé na leneen li ci des lu ciy waaye wax it da ngay wax rek sa waxi bopp la. Euh, dégg naa ñuy wax ne le président Diomaye woo na ma téléphone c'est archi faux musuma wax téléphone ak Diomaye woo nañ ma téléphone ne ma am na numéro privé bu ñu lay woo bu lay woo ci kaso bi Diomaye la woowu ma waxuñu waxtaanuñu donc kilifa googu ma dégg muy wax Cheikh Oumar Diagne euh, mag la ci man duma ko wax wax ji teggin wut mais li wóor mooy xam na li mu wax du dëkk parce que man musuma jokkoo ak Diomaye musuma waxtaan ak moom comme li ñu bëggoon nit mooy jël réew mi te jël nañu réew mi yàlla na sedd guy ci ñoom te li ñu yéene ci réew mi ñu am ko parce que nag lool rek lañ leen mën a ñaanal bu ñu échoué ñun ñoo échoué parce que ñun ci suñu bopp dañu mus a bokk ci ñuy xeex Macky Sall ak ñi mu àndam kon képp koo xam ne toog na fi suñu yéene mooy yàlla na ko yàlla dimbali ba li mu yéene mu mën a sotti lu ko moy rek ñun danañ am gàcce parce que Macky Sall lañ bëggoon mu jóge fi en tout cas kaddu yi nga xam ne wax nga ko sëñ Saliou dégg naa ko maa ngi la ciy remercier di am mbégte euh, di rafetlu toujours taxawaay bi nañu gën a farlu ñoom ni ñu def ba jot ci réew mi ñun position yi ñu am nañu ko affirmer noonu gëme ko noonu doxale ko noonu ba suñu borom def ëllëg ñu mën a nekk dans des stations de décision li nga ko waxee aussi noonu la man je ne suis pas un opportuniste politique je ne suis pas dans l'opportunisme du ne dama ciy bokk ngir mun a mos du ne dama ciy bokk takk ci ngir bu ëllëgee ñu mën maa boole waaw sëñ Saliou biñ ñu génnee ci pare parrainage ñun ñëpp dañ taxaw di xataraayu ne dañuy bokk moonte dem nañu ba ci biir man Bougane ma taxaw ne lépp luy bloqué processus électoral bi bokk ma ci nañu tëgg élection yi balaa le 2 loolu Sénégal yëpp a ngi ciy bàyyi xel kon du man sama bopp moom ma intéressé waaye tey boo xoolee résultat yi zéro yi ak un yi bari na waaw est-ce que ñun bëggoon nañu bokk ci élection yoo xam ne ñun ay zéro ak ay un la ñuy am parce que ku ne xam na ne élection bi caractère référendaire dañ doon xool kan moo gën a bañ Macky Sall pour kooku ñu féetale ko suñu ay vote maanaam un vote utile loolu la sénégalais yi def waaw élection yooyu nit ñi am ay un ak ay deux ñun est-ce que suñu tolluwaay un la ak deux déedéet waaw kon suñu borom mi ñu génne ci élection yi moom moo ñu muccal ci un yooyu ak zéro yooyu waaw mais suñu borom boobu xëy na moo ñu muccal ci war a dugal ci suñu loxo ci gestion x y wala z waaye nañ nangu dogal suñu. voilà mi ngi noonu alaaji ab audio la bu mu doon yónnee ab xaritam wax ko ne ko dinaa la euh, woo. loolu nag moo jaaxal sénégalais yëpp le fait nga ne diw maa ngi lay rappelé waat euh, nga waxaale sa soxla yëpp mu wax wax ju garaaw nag nee na euh, mbir mi dafa meloon ni ab référendum la dañu doon xool ki gën a bañ Macky Sall rek ñu féetale ko suñu ay carte bu dee sénégalais yi loolu la ñu euh, voté nekk na loo xam ne lu yéeme la en plus mu ni euh, dafa bëggoon na neutre parce que bëggul woon a am di sentir que ni euh, njabootam dina am ñu nga xamante ne ni daañu dispersé wu su fekkee ne dafa wane position am looloo waral tekkaaralam waaw <coughs> xam naa ne xaritam bi moom. xaritam bi mu envoyé audio bi moom xam naa ne xaritam bi moom euh, na ko moytoo envoyé audio waaw parce que xaritam bi moom ginnaaw xarit bee ko wasaare waaye du moom sëriñ Saliou moom mu envoyé de sëriñ Saliou moom moom wax dëgg fa yàlla ah, man de bu ma ko xamoon du ma ko envoyé audio xaw ma ban sëriñ Saliou la. mais est-ce que sëriñ Saliou. Ah, ah, damaa xam moom daal loolu la wax dana sëriñ Saliou rek daal di envoyé ab audio waaw mën na bañ a nekk boobu nag bu dee dañ de audio bi dafa fuité. waaw da nga envoyé ko ci portable sa xarit bay wax lii yëpp mu ne pëj ci mbedd mi. Hmm? loolu moom d'abord jaaxal na ma. ma jigéen sénégalais yi. Hmm. Euh, dañu voté te xam nañ bu baax li ñu voté. Hmm. voté pour bañ Macky sàll bu doon dañu voté pour bañ Macky sàll rek candidat yi bari na. te yeneen candidat yëpp jàpp naa ni ku piir pur rombo pour cent du dëkk boo rombee Amadou Ba mi nga xamante ni bi moo nekkoon candidat wu euh, état bi ku dut pur rombo pour cent te li nga xam ni moom la Amadou Ba am boo seetee élection yi nga xamante ni bi euh, moom la ñu génnoon 2012 Ablaye Wade soriwutoon score bi nga xam ne moom la Amadou Ba am boobu nit ñi dañoo doyaloon ci Ablaye Wade. Mm-hmm. Macky vingt 26 pour cent la amoon Ablaye Wade amoon ay defe naa ay 30 euh, et quelque amoon na ko 35 je pense que romboon na yu yegg foofu du dëkk biñ demee deuxième tour gaa yëpp jàppale ki nga xam ni moom la ñuy wax Macky mm-hmm. mu daal di gagné li nga xam ne mooy élection yi. élection yi nit ñi tànn nañ laa tànn. ñuy yegsi ci bés bi. moo tax waxam ji <laughs> moo la gën a xam ne nit ñi nekkul ni dañoo mere Macky rekk rek voté nit ñi dañoo déglu programme dégg ko ay senegale déglu usmaan Sonko mu wër fépp ci réew mi wax ak ñoom ñu nangul ko li nga xamante ni bii moom la leen wax ñu déglu ko dégg ko. jaral leen ñu ci def seen xaalis ñiy jël seen xaalis di ci def ñooñu nekkul ni dañoo bañ Macky Sall rek jëluñu seen xaalis di ko jox kenn ku ne candidat yi bari nañ woon ban candidat lañ fi fayal caution yamut ci caution mu fayal ñeneen ay caution ñooñu dañoo pare pour lii fi nekk jóge fi loolu nag yow tànte nga pour dugg ci élection yi moom bokk na ci élection yi tànte woon na pour bokk ci élection yi mais mënta dem parce que amut mbooloo mu ko jàllale. nee na moom mérité wul di am ay pour cent moo tax. waaw c'est parce que bon du loolu moom loolu téewu ko li ko téye parrainage ko téye. boo amoon parrainage ci 1 pour cent yi lay bokk. moom na sant yàlla bañ ko bloqué ca conseil constitutionnel. Mm-hmm. ne ko amu mataloo parrainage parce que loolu mën nga cee lay. mais fii boo ñëwoon yëf yi danaan fàng lu ne fàng kenn du ko jeex. mais mais tamit lay bi mu joxee le fait d'être neutre pour bañ a disperser njabootam loolu tamit est-ce que excuse la pour pour pour pour mu toog rek. croix ah, kon dafa neutre. ah loolu la wax ci. moom lool la wax lan mooy neutre. nee na toog bañ a bañ bañ a wax dara. déet loolu dangay wax ne gars yi bu leen foteel kenn def li Abdoulaye Wade defa non neen dafa bëggoon ku nekk rek mu dem ak xel ku nekk rek loolu kañ du neutre waaw loolu loolu ba tey du neutre bu fekkee ne nit ñi yàlla moom nee nit ñi moomu leen moom kay wax xam na ni muntatee kenn ne xam na ni bu joxee ndigal sax gars yi ba ko déggoo ko dafa avoué publiquement daal ne mën ngaa joxe ndigal sax nit ñi bala fa dem def leneen moom xam na ni ñi mu yor moomu leen kenn moomul nit ñi ci réew mi du dëgg maanaam buggaan daal dafa ànd ak ay nit di wëndeeloo ñoom naan leen yoon wi nii la yoon wi nii la gaa yi topp ko muy wër wër wër wër wër wër wër wër wër ba yegg si waat fi mu newoon maanaam moom dafa wër a wër a wër dafa ànd ak ñoom di wër gars naan waa ji xam na yoon bi muy tëb ay montagne lay jam nga jaar fii ñëw leen fii ñëw leen fii ba mujj gi mu ñëw taxaw xool ni fi mu newoon la ne mu ne gars yi ku ne daal na tànn yoonu boppam pourtant am na yenn chroniqueurs yi wax si wax ne sax nee nañ mën na nekk opposant bu nar a sonal euh, ñu be <laughs> nag ba jigéen nag da ngay comédie quoi opposant bu sonal kan ku muy sonal. Diomaye. <laughs> nu mu koy sonalee. Ah. nu mu koy sonalee. bugaan rek. déet dal mais nan la koy sonalee tànk bi na nga koo fay. nan la koy son tibb tànk bi <laughs> nan la koy sonalee xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga moom dafa am loo xam da koo jiitu ci wax ji parce que moom dafa taxaw fii wax ni moom. boo tuddee anti système nee na boo tuddee Ousmane Sonko moom nga ciy teg. waaw xam nga loolu ba tey ciy géntam la rek moom ay mbir boppam quoi. moo tax ma wax la léegi mu ne ah. mu ne naturellement ki muy jàppale. mooy candidat boo xam ne moom la Ousmane Sonko teg des candidats ah, anti système moo ko fi wax bés ba jot moom ba muy wax loolu Abdourahmane Diouf waxagut mm-hmm. ba muy wax loolu Mimi Touré waxut Mimi ko fa jiitu kee ko fa jiitu mm-hmm. te moom ba tey mi ngi tax ñoo ñoo ko gën a nekk anti système. di xaar deuxième tour. yaa ngi mhm. léegi mu ñëw di xaar deuxième tour affaire bi yelwaan ja këpp léegi mu def ojo bii di lay. Hmm? donc en tout cas li am solo. Hmm. mooy man euh, gis nga ma jigéen. Mhm. walaay buggaan mënoon na am carrière politique bu baax a baax a baax mais man dama jàpp ni Bougane hmm. dafa desee xam nu ñuy politiquer. combat bi jeexagul de. ay non non waa mais c'est dafa xam nga Bougane même sax gis nga pour nekkoon opposition bu baax. waaw gis nga surtout faa que ni. man su ma nekkoon Bougane. ma bëgg a préparer élection pour euh, deux mille vingt neuf damay soutenir Jumaa Jomaay man bu doon man laa damay soutenir Jomaay. bu ñu demee ba nga xamante bi jomaay gagné na ba noppi ma ne demandé wu benn post bokkuma ci gouvernement mais damay observer. pour xool maanaam damay xool li ngeen di def. moom laay xool ndax di ngeen ko teg ci yoon comme ni ngeen ko waxee wala déet laa bu boobaa mën nga nekk opposition boo xamante ni bi kenn du la mere dinañ ne ah bi yëf yi jotee de defe na ci participation parce que boobaa doon naa jël samay oto def ci essence def ci lépp campagne la takk ci répp ba ñëpp xam ne takk naa ci. boo paree nga toog ne yaa ngi dégg boo paree nag ma ne la séddoo kii moom. wala lii wutuma benn poste. li ma doon def dama ko doon def pour ñu jëlee fi Macky Sall. léegi nag. maa ngi toog ci sama roq di observer di xool waaye maa ngi des ci kujje gi di di leen observer gis nga bu boobaa dangay ngay nekk opposant bu crédible bu taxaw mais tey yëf yi ni mu demee nii nit ñi dañuy gis ni rek train bi dala fee baax d'accord te train boobu warutoon a nangu train bi di ko fi baax d'accord loolu erreur la boo xamante ne bi mm. def na ko te man xam naa ni ojo bii muy fite fiteelul looloo ko waral pour justifier wane ni ju pour moom yëg na ni juum la mhm. mais euh, mënul wax waaw parce que ñooñu muy wax noonu sax xam naa naan ñiy wax ni ak nii xam naa man lay gaarwaale pour la ay euh, mi ngi noonu en tout cas euh, doy na waar euh, ñu daal di jeexalee nag très rapidement ak suñu papa jooju di Moustapha Diakhaté kàddu yi mu yëkk <laughs> dama koy ormal rek mag la daa dee ma parce boo ne buñ toogee man ak yow nga ne suñu papa jooju ah parce que <laughs> waaw parce que man euh, bu sama sama taaw yaay xanaa ñooy maas. ñooy maase waaw wala ah, sama taaw yaay mag kon xam nga kon moom. grand frère la mën a doon ci man grand frère la kon mi ngi noonu <laughs> mi ngi noonu nee na nag Sonko du Diomaye te sénégalais yi benn président képp lañu fal ñu dem déglu ko te ñëw. présence Ousmane Sonko ci ca ndaje ma. loolu moom. Ah, xëy na ñi nga xam ne ñoo leen fal. tudde seen yëpp tudde seen mbir jamaay <laughs> mooy Sonko xëy na ñoom loolu mën naa dal seen xel waaye jàpp naa ne ñi nga xam ne ay républicain lañ dëgg dëgg dëgg dëgg démb war nañu am tiit non non c'est pas comme ça c'est-à-dire que kenn la Sénégalais yi fal kenn ki ñu fal moom la président la République war a recevoir suy wax suy wax ci dossier état moom rek ko war a fekk xamoo xamoo la ci ay photo nga gis xam nga photo yi xamoo la ci ah, man na maa xam la ci biir donc yow photo rek nga gis mm. yemal ci photo yi euh, donc présence am ci boppam man jaaxal na ma parce que Sénégal benn nit lañ fal président la rek kenn kooku rek la ñuy laaj ay compte je crois que bu ñu bëggee dugal ci bopp nit ñi ne Diomaye daf Sonko da ko war di coacher su boobaa li li Sénégalais war a jàngat mooy en réalité ki ñu fal matut président de la République loolu nag personnellement du du gis-gis bi ma ci am palais bi 1927 démb muy muy cent dix-sept pour la première fois président la bi ba fa dëkk dalal fa koo xam ne ci ay waxam ci ay sosam ak fenam ay mbooloo faatu nañ ay mbooloo seen alal yàqu na alalu réew mi yàqu na alalu doxandeem yàqu na te lay fitna jooju la ko indi Sonko dafa jiiñ Macky Sall ne dafa jël dafa utiliser Adji Sarr pour complot moom pour maanaam tuumaal ko viol ba ba du bokk ci élection yi ma jàpp ne tuuma ju noonu ko teg nit tuuma ju voilà mi ngi noonu euh, alaaji Moustapha de waxati na nee na Sonko du Diomaye te nee na am na yenn dossier yoo xamante ne nii président de la république euh, moom Diomaye mi ñu fal bees moom rek la war a recevoir te état jàpp naa ni bu dee kenn nit la rek moom dana metti ci ndoddam moom Basirou de xanaa. waa xam nga Moustapha Diakhaté dafa bokk ci ñi nga xam ne rek bëgguñu mbir mi réussir te ñu gis nii mbir mii mi ngi euh, ci yoonu réussir. mi ngi ci yoonu jàll ni nga xam ne noonu la war a jàllee parce que nag ak nu mu mën a demee am na loo xamante ni bi xam na ko te ñoom ñi ñëpp yàgg nañoo taxaw ci plateau yi défendre ko. daal na Sénégal dafa amoon départ bu baax départ bu baax boobu lu tax ñu wax ko dañu amoon ñaar ñoo xamante ni bi daanaka dañu partagé woon li nga xam ne bii moom la ñuy wax nguur gi. muy Senghor ak Mamadou Dia mooy bi gën. ci jamono ji nga xamante ni bi Sénégal mi ngi doon départ. nit ñi gis jaxase leen parce que dañuy wax ne ñu bari dañuy rëcc lu bari dañuy wax ne Sénégal bu ñu yàqutoon couple Mamadou ja ak Senghor mm-hmm. tey Sénégal romb na fi mu yomb parce que Mamadou Dia am na lu mu amee woon Senghor am lu mu amee mm-hmm. ginnaaw loolu bi ñu commencé sengoor teg li nga xamante ni bi mooy ay mbiram yi nga xamante ni bi moom la teg bi mu éliminer Mamadou Dia ngir mën a nguuru nguur gi nga xamante ni bi moom la mën a nguuru après gis nga abdu Diouf bi mu ñëwee amaatut leneen Abdoulaye Wade bi mu ñëwee amaatut leneen kii amul maanaam après ay buur la ñu am nga gis ni problème bu mel noonu moom la Senghor doon bañ mu amaat yàlla dimbali ñu nag Mamadou Dia euh, fal nekkutoon moo joxoon Senghor nguur gi mais yàlla ni bu ñuy dimbali ni mu ñu dimbalee. mooy lii yëpp tey xam nga kii dafay wax ne làmmiñu daaru day wax ne euh, professeur en droit la mm-hmm. mu ne lépp li ko indi li tax mu nekk professeur en droit lépp cuune da ndafa moo indi mu nekk professeur ci wàllu droit parce que affaire yi nga xam ni moom la ñuy def ci wàllu droit man damay wax ni cuune nguur gi moo ñu laat situation bi gën ci ñun mm-hmm. waaw parce que peut-être bu ñu faloon Ousmane ko tey day mën na mën na wàññi ay pouvoir am ak yooyu d'accord mën na def comme lépp lu nga xamante ni waxoon na ko. waaw mais du ñu woon am beneen couple du ñu ko am mais gis nga ni situation bi demee suñu borom dafa mel ni euh, jamono ji ñuy soog a jot indépendance dañ dañoo jot indépendance ñu ne jot nañ indépendance ñu ñëwaat daal di gam-gam le ñu ne est bii mooy vraie indépendance bi nga xam ne jot nañ ko mm-hmm. léegi ni ko ñaar incarné woon. sunu borom may ñu loo xamante ni bii du du ñun ñëpp sunu bëgg-bëgg ci njalbeen gi. Mhm. parce que ñëpp kenn bëggutoon yëf yi demee nii ba ci jomaay bëggut yëf yi demee nii. Mhm. jomaay bu amoon lu ko gënal Sonko moo doon nekk candidat. Sonko bu amoon lu ko gënal moo doon nekk candidat. Mhm. mais yàlla moo ñu indil. tey situation bii nga xamante ni bii moom lañ nekk ni situation bi ñun créé wuñ ko léegi nag lii mu ñu indil man dama jàpp ni mooy bi gën parce dañoo amaat Senghor amaat Mamadou Dia comprendre nga ni ñu ko amee mooy ci jamono ji nga xamante ne bi moom lañu ñu toll nii tembe da lay bir ne la jox eh, jomaay du demee am xelam kese dana calculer ci lu bari te loolu dafa baax parce que boo gisee dérive yi nga xam ne président Macky Sall def na ko wala Ablaye Wade yenn yi mu def yëpp c'est parce que dafa dem ba yëg ni moom moom moom nguur gi xam nga Ablaye Wade demoon nañ jëli ji ko ngir mu ñëw fale mooy ñoom Dansokho ak ñoom euh, euh, Landing Savané Ablaye li ñoom ñoo ko jëli ji woon pour mu ñëw bi mu ñëwee ba toog après daf leen a écarté d'accord boobu mën na ne parce que ñole biñ ñoom dañoo xam ne mënuñoo falu Ablaye Wade mooy opposition bi taxaw mais Diomaye moom da ko bir ni budutoon ak Ousmane Sonko maanaam du falu loolu mooy li nga xam ne mooy li ne mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. léegi nag moo tax situation bii nga xam ne moom lañ nekk nii te mu biir ma ni ma jomaay gor la goo xamante ni gi li nit ñi di wax ak ruumandaat ci seen bopp rek la ne mais dana def li nga xamante ni bi moom la war a def te danañ ko def ni ñu ko war a defee parce que ñii bi ñuy jóg dafa am lu leen tax a jóg xam la ma leen taxoon jóg li leen taxoon jóg mooy liggéey réew mi te tey sunu borom def na sénégalais yi jël nañu réew mi teg ko ci seen loxo ñoom Moustapha Diakhaté nii nag fekk ñi ngi mer réew maa ngi ci siraatal mustaqim waaye bés boo déggee ni bëgg nañ booy ba nga xam ni réew mi wàcc na yoon wàcc na ci dox bu normal mais fekk yaa ngi leen di gis ñu dem ci plateau yi man léegi Moustapha Diakhaté dama koo mën a seetaan xam lu tax ma mën koo seetaan parce que meram dama ciy am mbégte ah. waaw que dama bu ma xoolee rek li muy li koy naqari man maanaam daf may neex ba pare ma ñëw mu mu koy naqari ah, mais tuub mën na am demee ba xam ne nag fi nii am na ñoo xam ne wees tuub day wees ci ñoom lu ci ñoo tuub ah. Moustapha Diakhaté fi mu tool dafa sori dafa sori dafa sori maanaam Euh, dafa am loo xamante ni bi mënatu ko. d'accord mënatu ko quoi. mais en tout cas lii nga xamante ni bi sunu borom moom la ñu defal. Mm-hmm. nañ sant yàlla te xam ni lu baax la. Mm-hmm. président Diomaye fay jiite réew mi. Mm-hmm. ànd ak ki nga xamante ni kii mooy Ousmane Sonko. loolu macha allah incha allahu rabbi fanweeri at yu wér ci kàttanu borom bi. sunu borom mën a parce que gis nga réew kenn mënu ko defar ci juróomi at. waaw léegi dix ans yi bu jàllee yeneen dix ans yi jàll yeneen yi kan lay doon ba nga naan fanweer. fanweeri at ah non. <laughs> kii dix ans. dix ans bu def kii bu defee dix ans soo ko def jomaay day ñëwaat. ah ok d'accord day ñëwaat defaat dix ans. <laughs> boobaa nag ci diggante bi. booy yi rokkal nañ la ci leen nee nañ mooy ñëw. ay Guy Marius Sagna nañ sant yàlla yàlla na yàlla def jàmm ah, réew mi daal de jag uh-huh. sénégalais bu nekk li nga xamante ni bi moom nga ci doon sóor mm-hmm. ak di ko ci yaakaar mm-hmm. yàlla def lépp daal day yemb sunu mm-hmm. borom mën na ko yàlla na ko def yàlla bu yàlla tas yaakaar yàlla na yàlla woyofal yen bi ba ñii nga xam ne ñooy noon yi bëgg ñu bëgg a ree mm. yàlla bu ñu gis lu ñu ree d'accord sunu borom mën na ko te yàlla na ko def kon ñu joxante dig daje beneen altine ci kàttan incha allahu rabbi mm-hmm. kon nag sénégalais bu ci nekk fa nga toog rek waxal alhamdulilah di ñaan yàlla yàlla bu yaakaar euh, tas ci benn sénégalais euh, di leen wax ne nag lii lañ leen indiloon tey ci l'émission des émissions jaajëfal nañu Modou Diouf Abdou Top ak Abdoulaye Diallo jox leen di daje beneen altine ci l'émission des émissions